kii bàyyi xel Medina yi di ñu topp comme ni leen koy faral di defee seen quatrième numéro euh, Pikine Ama Baldé euh, ku ne xam ne ne mooy Thiaw Sakhir Ama Baldé ku ne xam na ne temps yi moo yëngal jamono ndax moo def ndel ndel bi di ndax nee naa leen quatrième numéro la ma di ko defee tey pikin ànd ci ak Ama Baldé ak ndogu yi taalib Serigne Saliou bi aca kon niñ ko doon defee rek euh, di nuyu kilifa diine kilifa aada di nuyu ñi ci prison yi yàlla génne leen ñi tëdd ci lalu hôpital yi yàlla fëgg seen bopp ñi nga xam ne ñoom la yàlla jël tamit yàlla xare leen àjjanay firdawsi aca mbokk yi loolu lañ leen doon n chaque jour moom lañ leen nuyoo tey ak Ama Baldé Ama maa lay waaw maa lay ziar soxna si maa lay ziar bu baax a baax taalibe Serigne Sall bu mag bi maa lay bu baax a di sant yàlla bu baax a baax di santal yàlla bu baax a baax di santal yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari waajur di sant Serigne Saliou Mbacke bu wér a wér a wér di santal Serigne Saliou Mbacke bu baax a baax di santal Serigne Saliou Mbacke Mbacke bu baax a baax di sant Serigne Abdou Karim Mbacke bu baax a baax ak njabootu Serigne Fall yëpp di sant sëñ Ateex sëñ Tako sëñ Afia xam na di sant njabootu Serigne Fall yëpp di ñaan sant njabootu maam Cheikh Fall yëpp maa leen sant di la gërëm di gërëm borom mbool sëñ Fall mboor maa ngi koy gërëm bu baax a baax di sant yàlla bu baax a baax a baax. Hmm. Ama lamb ji yëngu ku ko yëngal Ama Baldé wala piki na ko yëngal bu ma juumul piki na ko yëngal wala ama moo ko yëngal ama ñu for ci wewu béy ne nig li ko laay dem na ci yoon euh, ba ñu ne làmb ji nii lay féete bari ki démb ba maa ngi dégg kenn naan lu tax bi ama amee problème bi moo du amee problème ama mën a jël keneen léegi bi ama amee problème lu tax du mënul jël keneen waaw dañuy sant yaar rek kon sama nu ma wax sama émission bee rek ama loo xam ne man man mbër laa rek damay bëri rek dama am staff am ménagère xam na lépp kon lu ma la doon wax rek waa CNG ak waa Nico li Nico laay la man l'essentiel man lu ma am mooy maa ngi maa ngi préparé Gris Bordeaux di ko préparé sama staff ak samay mbokk di si ñaan yàlla nañ ci yàlla may wér bañ mun a eggaleeg suñu soog a mën a eggaleeg Gris Bordeaux. Mhm. pour moment Gris Bordeaux lañ am. Mhm. instant bi Gris ngeen am wala wala nga am. waaw man Ama Baldé pour l'instant man Gris Bordeaux laay préparé xam na règlement Gris Bordeaux la ma may pour ma bëre Gris Bordeaux laay préparé pour bëre Gris Bordeaux. Mhm. bi ngeen di face à face seen dernier face à face bi ngeen jàkkaarloo yi dañu gis Ama ba muy jàkkaarloo ak ak ak ak Gris daf ko joxoon ci respecté ko mais dernier face à face dañu gis Ama bi mu ñëwee daa yëngal mayu Gris Bordeaux dara lees ko yebe la wala Ama da doon da doon tâtonner rek. non lu ma yëngal yëpp yëngu ma yëngu si kaar làmb la yam dama ko respecté jox ko cëram parce moom mooy suñu kilifa xam lu ma la si ñaari fànn mooy suñu euh, président mbër ba pare tamit suñu suñu kilifa la si làmb jiiruñu si làmb lépp ku soñoon tamit boo nekkee si làmb ba jënd te bërigoo Gris Bordeaux day mel ni bëriloo kenn comprendre kon dañ koy jox cër bu ñu war lépp ñu war lépp lañ koy jox parce que moom mooy suñu mag mooy suñu lépp Badja wàññil kii mhm. acca tey tey bi ñu gisee Ama Baldé ne moom dakasawul kenn koo xamante ne ku dul Gris Bordeaux la ca CNG ne règlement bi nga xam ne mooy dox mooy Ama Baldé ak Modou Lo moo war a dox ba pare après kee doog a ñëw léegi euh, bi bi loolu Ama ba réaction nga si def. non ma si réaction benn kon lu ma lay wax rek kon lu ma bañ nee ma combat bi yàqu na lu ma waxoon rek kuy may sa bopp lu la yàlla séddee rek da nga xam ne ah, loolu la yàlla séddee kon noonu laa ko jàppee. man l'essentiel ba combat bi yàqu yëpp man Gris Bordeaux laay pare Gris Bordeaux laay pare CNG CNG la ak likoon naay ak ak ñooñu comprendre na man ko ma la wax rek même bu fekkee loolu CNG di wax am na Gris Bordeaux n'est-ce laa war a bëree ba pare kon moo tax ma la man Gris Bordeaux laay pare su ma paree si Gris Bordeaux pare dem seeti leneen. kon yow dafa mel ni Ama da ngay da nga da nga commencé di reculer sa diggante ak Modou te parce que lu ñu waxoon yow Modou la ñoroon tey dafa mel ni da nga commencé reculer sa diggante ak Modou lan la. ma la wax rek Modou loo amul dara loo xam ni day seet sama diggante moom amul loolu moom moom moom bu buñ si tollee maa moom war a bëre dama xam ne koo signé lul contrat koo bëre lagul mun wax si moom lu bëree bëri dañ koy ñaanal rek yàlla defal ko jàmm. ngir bu boo xam ne moom la ñu war lu beure yalla ñu yalla may wër bañ tal ko ba fekke ko comprendre mu na dem bëri jëg Gris Bordeaux bu ñu paree Gris Bordeaux ba paré do ko dem djublu ci si Lo instant yi Gris Bordeaux la ñuy préparé dañuy ñaan yalla yalla lañu ci yalla may ndab ci waw li Pikine nga jël avance parcelle sa rakk du gaat parcelle est-ce que Pikine 100 bi ñuy woté mu ngi fi wala ban rak Boy ñaa non boo ñaan nekkul sama rakk de. moo yaa ko mag moo la mag. moo ñoom ñoo mag fuuf ñoom ñëpp. kon sa mag waaw sa frère. sama frère boo ñaan maa ngi ko ñaan yàlla na ko suñu borom defal jàmm dafa war a dem bëri jéeg dafa war a dem bëri jéeg ah, Modou Lo war a bëri jéeg moom mbër la champion la def lu nekk si làmb xam lu ma la kon lu ma la wax làmb ak boo ñaan ak Modou Lo nekkul boo ñaan moo ko sàkku nekkul Modou Lo moo ko sàmm lu ñor tab bi daa ñor tab bi rek yàlla boole leen ñu war a ñu war a bëri di si ñaanal boo bu si toolee yàlla na suñu borom may ndam Mm-hmm. ñu gis rumeur yi ñi naan waru ko na jël c'est parce que ama dufidugu fi dugg mu di fi dugg kon li ñuy woté nekul wax ji bari dal bir pikine est-ce que yow bi affaire bi amé bi euh, ama jëlé yow bi nga bi ki jëlé avance bi dégante ngeen ci wala dégante wu wa arnon loolu la lambo franchement boy ñaa ba mi préparer balla gay bo peut être combat sox bi and nañ entraînement 2 mois di entraînement waye bamu joké jëkke euh, ki numu do bamu joké signature ki Balla Gaye xam naa daf ma ah, daf ma libéré rek boobu lañ gëjoon déggante gëj a déggante comprendre gëj a déggante ba nu mu bëree ba mu bëree ba pare ba rumeur combat amee tamit déggante wuñu déggante wuñu man maa ko man maa ko mujjee am lu ma ko yónnee man maa ko yónnee message comprendre am lu ma ko ñaax si combat moom mullo bu baax a baax waaw yónnee ko vocal yónnee ko affaire na ko jàppal si lii boo kee si yàlla na la si defal ndab comprendre kon man bu ma amoon combat tamit noonu la koy defee man nag ma defee ko noonu rek mhm, waaye man moom amuñu benn problème benn problème amuñu ko. Ah, ci biir combat bi kon dafa jàppoon ne eh, yow ak Balla Gaye ni ngeen jegeñee daf la daf daf daf la war a écarter ba làmb ji jeex wala. non écarter wu ma de non nekkul écarter wu ma écarter wu ma du ma écarter comprendre daa xam lu ko war rek mu def ko nekkul lu ñu écarter comprendre na ma nangul ko ko nekkul écarté waxuma ama toogal franchement moom sax dafa ma doon wax ama nañ ànd entraînement ànd entraînement comprendre man maa ko naan na loo ne xaju fi bàyyi noonu dama gérer ji def li a def yàlla ku mu may ndam la yàlla may ndam boo ko yàlla mayee ndam tamit kontaan nañ si jibile si ñaan si kon en tant que Pikinois di encouragé Balla Gaye bu amaatee beneen combat xam na yàlla defal ko si sutura mhm. aca ama ne nga déggante ngeen wala daf la daf la noon xaaral ba combat bi jàll jamono ji ñu toll moom yéen i ak euh, euh, soqu ma yéen a ngi déggante wala Pikine ku ci ne da ngaa toog sa ruq. non moi franchement franchement ñun ñëpp nag ñoo si jàmm moom wax dëgg yàlla xam nga rek ñu ñëpp ñoo si jàmm ñoo ñu demalante ñoo ñu dikkalante comprendre di ñaan jàmm la Pikine loolu ñu fi yaakaar amu fi ñu ñëpp ñoo far ñun ñëpp benn lañ. Mhm. kon rumeur yu sew yi est que tamit du jar bu bu rumeur génnatee benn leader génn def euh, défendre ne noonoo demewul noonu wala mag ñi nga xam ne ñoo nekk Pikine ñoom ñuy xool bala ñuy wax est-ce que li ñuy wax noonu ñoom ñu ngi ko gëm nañu mbër yi ñoo koy dund wala ñoom ñoo koy dund seen biir c'est parce que am na benn mag bu ma dégg mu ne Pikine booloowuñu bokkuñu dañu koy wax waaye du dëgg ci ñoom c'est parce que kii mënul jël foofu avance keneen jël fi avance coow laa ngi mel ni tulleeg mali coow li est-ce que du yéen yéenay rafetal yéen leader yi mais ci seen biir noo jubóo bi des na de Ama. non franchement xam nga euh, xam na bu njëkk ba ba ñu nekk gën a nekk booy activité amul lañ doon ëpp lañ doon ànd comprendre na léegi nag ñu léegi nag ku nekk am na xam na ba ñaa boobu amul amul jabar man xam na da man mun naa dem ñëw fii comprendre moo ngi am na jabar am na doom fa ma ñu fondé famille comprendre dañuy gëj a gisante comprendre waaye teew xoolee xalaat yëpp ñu ñuy gisante bu ñu waree gisante dañuy gisante réglé ko vite fait après mu dem sété leen ma dem sété leen comprend àdduna ak rumeur ñoo am yow mi nak na xam ni ah, waxuma la dara do xam ni ah, ni ku simple na rek ni ku simple na rek yow téw dañ lay waxal dañ lay waxal lo xam ni mooy dañuy wax ci yow àdduna ak rumeur ñoo ànd waaye tamit nit bu mu dox ci limeur bu mu dox ci détail comprend bo doxé ci limeur rek def si détail ni la joom comprend hmm parce que auto bu lay jëlé yoof mo lay indil hmm waaw waaw mhm. légui grand contre petit dafa xew te que ci nga jëlee woon Tapha Tine ci nga ñëwee jëlee Modou Lo ci nga ñëwee jëlee Gris Bordeaux grand contre petit bi est-ce que doo jotul tey ñu ñu bàyyi mbër yu mag yi ñuy boole ca jël xale yi booleeg mag ñi mu doon grand contre petit bi. waaw grand contre petit parce que amatul moo fi sës maam grand contre petit moo fi sës fii mu nekk. grand contre petit moo fi sës fii mu nekk fii moo fi sës comprendre na ñun tamit ginnaaw bu ñu jël jàppee suñu grand yi. mun nañ si am ndam mun nañ si bañ a am ndam ñun tamit noonu la tamit suñu raq yi tamit di ñëwee sonal ñu lépp en tout cas man bu si toolee ni ku si tool rek nana fair play nana fair play xam ni carrément làmb boo bañee ñu tëkk la wala na boo bañee keneen keneen laaj la day dem jënd ji làmb dem seeti beneen liggéey man ëllëg xale mu ndaw daf fiy taxaw taxaw ne ma jox leen ma am wala ma ray ko boobaa damay fair play wala ma jënd làmb dem rek làmb ak loolu ñoo am fii xam lan moo sincère ñaaw rek a sincère mooy xëy yokk waaye loo gis si àdduna day jeex àdduna loo gis si àdduna day jeex doole day jeex taar day jeex xaalis day réer lépp day ñaaw rek a sincère si àdduna moom mooy waaw moom moom rek a gore waaw. Mhm. ayca Ama Balde bés bi toll na noo xamante ne nii kenn mënu la koo wax coow li bari ci Pikine Ama nga xëy dem wattu ne la Ama ku la wat. waaw damaa génn sama papa Fallaye Balla ne ma watul ma watu xam nga man moom rek laay man moom laay topp topp ma kenn. waaw sama papa rek laay def moo ne ma watul ndel ma wat ndel xam naa wat boobu moo wat la yàlla def barke waaw moo tax gis na ndel bi léegi tuddatuma Ama Baldé tudduma sëll Koyaadaa tudduma Double Nassar borom ndel bi borom ndel bi kay taay waaw <laughs> xam nga kan laa fi bàyyi. Ablaye Wade rek Abba rek laa fi bàyyi. ñoom kese laa tiit. sama papa Ablaye Wade maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fan wér gi yaram moom rek laa tiis si ndelam Aba moom daa yàgg ndel ah. waaw daa yàgg ak ndel ndel copain la. Mhm. acca Ama la mës a metti ci làmb ba mu ba mu ba nga tëdd xalaat ko wala lu la mës a ci làmb ba nga xëy rek euh, waaw yaa ma gën a xam. waaw man la metti si làmb xool premier combat Malaw ba ba ko kii daane nu mu tuddati ku dëkk à Lamsar. comprendre super étoile boobu laa la wax si mun a làmb boobu laa am loo xam ne met na ma si làmb franchement. moom li la lu ma si neex moom lu ma si neex lu ma si neex lu ma si neex bëri na lu ma si neex sama premier combat ba ma waa Pikine bi yëpp dajale du ma yóbbu ah du ma yóbbu stadium ba ñëpp takk ñëpp kii boobu ma gën a neex sama combat yi wax dëgg yàlla maa ngi Ousseynou Ndiaye. contre Malick Niang non xam man xam naa Malick Niang maa ko nekkul nekkul bu Malick Niang di daanu taxaw ci xaw ma 15 xaw ma lu ko ëpp. waaw waaw xam naa ne danoon dóor muy daanu waaye man Malick Niang bu fekkee sama père Gaston maa ngi ko ñaan ko yàlla may gudd fan wér gu yaram ba mu bërelee kii nu mu tuddati saa kees ba a jënd esa laa ko ne jox ma kii man maa ko mën sama làmb moom ital la ma Gaston woowee man maa sàq loolu maa ko ne jox ma Malick Niang comprendre benn benn amagu ma surprise amagu ma dara lu ma naqari même defet yi ma am sa naqari wu ma. Mhm. la bokk. waaw si làmb la nee naa leen bu leen ko raté bu dee leen topp Medina TV kese ak bu sobaale yaayi xaadim taalibi Serigne Saliou Mbacké bi mu ànd ak nelu Ama Baldé bi nel bi kese la ñuy topp ñun tamit ndax moo ñu fi indi Ama aca looy tëjee waaw nii laa koy tëjee rek borom ndel bi <laughs>